tey jii nag suñu tànk yi comme nu ma ko waxee ci njëlbeen tànk ndaw président de la république la dafa am loo xam ne daf ñu ko sant ñu koy dox di ko topp di ko caytu seet fu mu yam muy ci wàllum ndox mi ak ci wàllum assainissement ñépp xam nañu màggal lu muy am ci mbooloo ay million million mbooloo ñoo fiy teew ci fan yu gàtt te ndox mi xëy na am ci jafe-jafe tuuti ñuy jéem président ni jéem leen lépp loo xam ne état war na ko mën a def ci wàllum ndox pour que bu màggal jotee problème ba ñu am ngeen def ko ci loolu ci at mii nga xam ni màggal 2018 bi ñuy dugg président ñi defar leen ay forage Touba mu nekk juróomi forage yoo xam ni am na fi ñeenti forage yi muy forage u jannatu di forage u Thiawéne di forage u Lansar ak forage u hôpital état bi def ko juróomeel forage bi Maaw Rahmati moo ko def au niveau zone centre

manam équipement yi état bi moko fournir maaw mo def forêt mo gas way équipement bi état bi ko fournir té lolé bu nga xayma xaw naa jege milliard 1 milliard 100 et poussière la la état bi def ci walum ndox mi tay ji buñ neen manam fi ci Touba li ci am ci disponibilité ndox matna manam euh juróom 90000 vingt dix mètres cubes jour xëy na pour ma traduire ko ci wolof dana xaw a naam ma jum ci chiffres yi waaye yokkaat nañ ci lu xaw toll na vingt mille maanaam boo jëlee téeméer yi yi fi am yokk nañ ci au moins ñaar fukk yaakaar ni liñ ci def bu sobee suñu boroom bu bis bi jotee du ma wax nag parce que damay wax toujours loo xam ne du mën a nekk dëkk koo xam ni maanaam population bi jege na million mu teeru lu toll ñetti million ñeenti million ci ay mbooloo kenn mënul assurer que ni dinaa mën am cent pour cent ci lu ma soxla waaye dañuy fexe wàññi coono yi kay wàññi parce que bu ëllëgee moo tax sëñ bi bëgguma wax jour ba ñëw robinet fee tëj fële ñu ne ah ndox mi ndox mi lii ndox mi la lee waaye lu ñu ci def ci investissement yaakaar na ne dana indi amélioration bu am solo ci wàllum forage ci wàllum ndox mu jóge ci forage déjà fi ñu dem quartier yu ñu jot a dem gis nañu ndox mi mi ngi jolli fu mosuloon am ndox mi ngi am ndox pression yi yokk nañu ndox mi disponible na te loolu yaakaar naa ni ñu ma àndaloo léegi dégg nañu témoignage population yi du ko def waaye bisu màggal nag nit ñi dañuy gën a bëri soxla bi gën a yokk te yaakaar naa ni année bi bu sobee suñu borom dana tane loolu ci ndoxum forage la waaye au delà des forages am na ay camions citernes yoo xam ni mettre nañ ko aussi à la disposition commune bi lu toll na ci plus de cent cent soixante camions présentement fi may wax am na cent quinze camions yoo xam ni ex nañu Touba ñu ngi fi dana mat.

yalla mën lepp waaye ñu fexé ba xam nga coono bi nga xamni euh ni fi ñew di magal ci ñu koy am ñu fexé ba wàññi ko. tank yoy lañu nek ñu ci dox te yaakaar naa ne cette année bu soobee suñu borom amélioration bu mag dana am donc kaddu yoy la amone lu may wax di gërëm ñi nga xam ne ñëpp ñi nga xam ni nañu ci liggéey bi parce que tay effort bu mëne taxaw fi def ay forage commune nous aussi japp na parce que site yi def forage commune bi koy joxe avons commune bu parce que ndigal li ndigal fi am ñu def la la nga def la bu lu sax ko wax yow facilité yombal donc ci loolu la ciy gërëm bu baaxa a baax di la ça, di gërëm fait yi nga nañ ci bi ba fi nga nañ ci résultats am. ñu am ko di sàkku ñaan nag di sàkku ñaan parce que doomu aadama def la mën waaye suñu borom mooy mottali te fii dëkku ñaan la di ñaan li nga xam ni président de la république moo ñu ko sant ñu jéem cee def suñu borom mottali ko parce que yéene la ñuy mën a am def mottali yéene bi waaye suñu borom mooy mottali ñaan bi moo koy mottali te loolu tàllal nañ la loxo tàllal loxo président de la république ci liggéey bi ñuy liggéey suñu borom mottali ko ba nga xam ni jafe-jafe du am bu bés boobale di la bu baax di la sant di sant aussi gouverneur sànq ba la ñoo ànd def nañu tuuru maanaam fépp foo xam ni forage nekk na fa jannatu Thiawéne Lansar zone centre euh, voilà ak hôpital am na yeneen forage yoo xam ne aussi maanaam yeneen ñaari forage yoo xam ne aussi dañ leen renouveler maanaam dañ leen defaraat de telle sorte que lu ñu génne ci ndox yokk na

mi ngi leen di nuyu ne mi ngi delloom nuyoo Mouhamadou Mansour Faye mboolem délégation bi ànd ak yow muy gouverneur de la région Moustapha Ndaw ak Serigne Mbaye mi jiite ëppoor Sini Ndaw mi jiite ëppoor ak mboolem ñi nga xam ni ñooy liggéey ci yow ne di la delloo rek am nuyoo ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ni mooy Serigne Touba tey ne di la jottaliit kàdduy nuyoo nuyoo ak cantam ak ngërëmam ne waxal na la ko ci làmmiñu boppam ba nga dikkee nga ngay dégg ne ndax yëg na ni kat jéego yi nga xam ne def nga ko fi kon mi ngi lay sant bu baax di la yóbbante nuyoo ci président Macky Sall mi nga xam ne moom nga fi teewal ne ci ndigalam it nga fi ñëwee nee mu baax it seere nee ndax sëriñ bi ne nit bu fekkee dañ laa teg ci kanami nit lu ca waay soxla ñëw jaar ko ca yow kon képp ku ca góorgóorlu war nga koo leeral ba ñépp xam ko nee na mu ko waxe woon rek nee ku ci deful la mu war a def nag bu boobaa nu jàpp sunu njaabor waaye duñ ko jàmbat nee dafa bokk ci li Sëriñ Tuubaa tere waaye daanu maandu ci yow nag waaye nag ku nu defal lu baax faaw it ñu seere ko ba àddina bépp xam ko ne suñu kilifa yu tedd ya di njabootu Serigne Touba ñoonu lépp te ñañu jamante loon ku leen mës a jëfal ngir njariñal mbooloo ma daañu ko leeral ba ñu topp seen ginnaaw xam ko ne loolu warugar la ci ñoom kon ñu ngi la yóbbanteem nuyoo ci président bi nga xamee ne màggal gi des na juróom-benni weer Cheikh Mouhamadul Muntaha da koo yóbbante ci président ci lu jëm ci forage yi ne laata ma koy gis nag ne waxtaan na ci ak yow ne ba mu ca waxtaan ak yow nee nga ne ko fas naa ko yéene danaa fexe ba joxe ndigal ba ñu def lu mat ñetti forage ndax booba dala ne woon ñaari forage ba ñett bu mënee am ginnaaw ba mu ko waxee président président joxaat la ndigal wax la ko yow it nga def ci sa yittey bopp ndax nit dees na ko jox ndigal. mu def ca la mu war a def wala mu yem ca fa mu ca war a yem waaye da nga koo dolli ba mat ñeenti forage booleeg defaraat forage bi nekkoon nekkoon loolu xam na ni yéene nga ko defee te boole woo ciy waxit ak yeneen dëkk yu bari ci yoon wi ne diirub kat nga yor ndox mi mboolem forage yoo xam ni ay kilifa jaaroon nañ ko ci moom. muy ñoo xam ni njabootuk sëriñ tubaa gi lañu wala ñu bokk ceexi sëriñ tubaa yi yi ci ëpp def nañ ko te am na ci barab yu ruqe ba saalum ne loolu lépp nag boo ko defee ngir yàlla ak jëmmi sëriñ tubaa sëriñ tubaa mi tax ngay jëf yàlla na la fayal boppam ne nettali woon na ko fii daaw jéen fay bi mu nekkee yow nekk ministre délégué ministre délégué ne Diène Faye moo ñëw ba këram daaw jéeg wax ko ni ko maa ngi moom rek ak yàlla mun ko dama lay seereel taxawaayu Mansour Faye ndax lépp loo xam ni kat xalaat naa ko ni ko dama ko bëgg a def Touba da koy yokk te da ko may nangul na ko waxee. mënoon na koo gàllankoor mu ne kon nag yow Mbàkke loolu war nga koo xam ne loolu benn rek la ci loolu ba ca desit nag wàllu assainissement bi ne moo yow ñoo ko waxtaane woon fii ci biir kër Sëriñ Tuubaa gi nga ne ko def naa ko samay tey bopp nga ne ko mooy li ñu gën a ñor loola itam jéego yi nga ca def bañ ca xeer wi ne loolu lépp itam nag ñu ngi la ci sant bu baax yëg nañ daal sa taxawaay ak ni nga fonke Touba ak ni la dëkk bi ñore te nun nag Serigne Touba rek la ñu am képp ku ko fonk ku ne nu fonk la te yëg nañ ci sa yitte yëg sa taxawaay te defoo ci dara ngir soxla nit ñi xam ko ndax mboolem ñi jaxasoo yow ñëpp. xam nañ ni liñ la seereel mooy nit ku dëggu nga nee nit koo xam ne la mu xalaat rek lay wax te doo wax lu amut ne jooju jukko nag lu am solo la moo tax dëkk bi nga bari fii wëllëre bari fii xarit bari fi ñooy jàppanteel te nit ñi sax xamuñu ko ne loolu kon mi ngi la ci sant bu baax ne ba ci seen doo doomam ji ni nga ko jàppe di Cheikh Abdoulaye Lahad ne loolu lépp itam fonk dëkk bi rekk a tax kon ñu ngi lay ñaanal bu baax sunu borom dimbali la mottali sa mission ba li nga yéenee jëf nga def ko nu kawe sa njort te sunu borom dimbali la ci bu baax ndax xam nañ ci dégg ndigal ndax lu mu doon rek dañ ko waxtaane te loolu la ca wax nga def ko loolu nag mu ne su ko weesu kon nag ñu ngi lay sant bu baax sant koo xam ne suñu xol la jóge ndax li ko waral it ne lépp njëriñal dëkk bi rekk la ndax lu la ci wax da nga ko def te boole woo ciy wax ne loolu nag as gortu ne boo ko defee defalee loolu loolu dong la la mën a faye kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax sunu borom gën laa dimbali gën laa defar tawféex jërë ngeen jëf jërëjëf waaw Mbacke